Sport TV, merci encore les gars de la confiance renouvelée, merci de vous et des likes, merci de vous et des merci également de baisser les commentaires, un hein. plaisir nouveau les gars, chaque fois de partager les informations yi mbokk Sénégalais, sénégalais fait pour le maintenir 14 régions du Sénégal ak Nouvelle Cup, ñu leen di jaajëfal ñu nekk également ci la l'hôpital beeg ci kër de février, yàlla na suñu borom fekk seen qui ñu wér ak ñu le ci yi nga aussi erreur judiciaire gi ñu ne ñu def moo le fa suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu dellu àdduna suñu borom xare leen àjjana Firdawsi gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de e sport TV l'actualité en continu actualité bi gars ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy suñu équipe nationale bu gaynde yi nga xam ne gars yi ñoom actuellement le moral est au beau fixe gaynde yi nga xam ne actuellement daal sentir nañ ne confiance bi am na fa détermination bi am na fa jëm ci dernier match bi nga xam ne ñu ngi ko war a joué ñu nag waa Équateur nga xam ne nag équation bu ñu war a résoudre la est-ce que également Sénégal dina ko résoudre loolu la ñuy ñaan mais d'abord Lionel Messi yéena ngi dee gars yi naan dafa signé MLS loolu nag amul Lionel Messi actuellement dal mom nee na day bàyyi ko du noonu lu comme ni mu ko waxoon mu dal di jël décision mais japp nañ ni mom Paris Saint-Germain daal nañ ko bëgg prolonger contrat et Lionel Messi nee na jamono ji ay doom ils se sentent bien au niveau du Paris Saint-Germain Mason Greenwood nek boy bo xamné ne pépite la ñëpp na wax naan boy bi waaw ah, fa waroon réussir si football mu dóoroon gelam ñu dal di ko té jàppoon eh, nekkoon nak jamono ji bu jege gel bi mom lu mu def da mooy dem jëndal xalé bu jigéen bi ay yére yu jekk eh, tribunal nak war ko ne lool nak dañ la téré won sax ngay jege gel bay wax ak mom mais aussi benen information moy wa Russie ñom jamono ji nee ñom bo moy bu continuer pression bi leen teg dañuy ci euh, championnat européen même championnat Asie bu loolu nag boo amee lépp loo xam club russe la leen compétition européenne yi nga xam ne mi ngi am donc ci walum football ki nga aussi nag mooy Alphonso Davies euh, gannaaw ba mu raté penalty match bi njëkk contre Belgique moom Dougal dougal tay euh, but mu nekk le premier jour du Bayern Dominique bu du ci coupe du monde depuis 2014 ans. Hein. donc ki nga xam qui dit donc kii di Alphonso Davies Qatar nag tontu nañ ñi nga xam national Manchester bu Allemagne gannaaw bi nga xamee nag ñoom dañ ñëwoon dañuy défendre góor jigéen ñi ñëwoon ba si euh, seen hymne bi ba ñu paree jël seen gémmiñ taf ko ci waa Qatar nag dañ leen def lu gën a dee dañoo indi photo kii di Mesut Ozil nga xam ne moom nag jullit la nga xam ne waa Allemagne ñu ko doon sonal ñu daal di jël photo am nataalam daal di koy fësal jël seen loxo ñoom it waa Qatar te ko seen gémmiñ l'Allemagne reste en vie grâce à ki nga xam mooy Niklas Füllkrug Füllkrug Füllkrug plutôt Niklas Füllkrug l'attaquant bu euh, Werder de Brême donc Füllkrug moo daal di dugal bu égalisation bu Nationalmannschaft face à la Roja de l'Espagne mais également ki nga xam mooy Jamal Musiala Diawara boy bi actuellement gars yi ah ñu ngi gars yi ngi muslu ci mom bu baax baax parce que il est excellent tay match bu exceptionnel la def l'attaquant donc du Bayern Dominique Jamal Musiala bi nga xamné donc mom mi ngi wane boppam bokk na ci jeune révélation yi mais image bi rafet na ki nga xamné moy Luis Enrique ak euh, ki di Hans-Dieter Flick ba match bi jeexee ñom ñaar ñu daal di lonko di wone football day boole warta tàqaliko et que image bi lañuy bëgg a gis si football mu di fàttali né Luis Enrique mom tay dafa tombé nak anniversaire u doomam bi daal di génn àdduna donc waroon am fukki at ñatt tay ji ji gis ni di Clément Turpin di arbitre français mo wara arbitrer match Sénégal Équateur mardi lay doon nak ah. donc le Sénégal obligé de gagner face à l'Équateur Sénégal de foro dor Équateur bu qualifier ci coupe du monde lol nak match bu nar mettre le tax la confiance et tout beau fixe ngeen gis image bi ki donc Tony Mario Silva l'homme de 2002 le gardien de 2002 and ak Alfred Gomis et aussi Seyni Dieng la relève de l'équipe nationale du Sénégal gars yi xool leen ko boy bi moy fasciné dans un futur proche nek gardien numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal duñu faté aussi ki xamna moy ne mooy tactico téye na bal bi lan la fas yéene def ci bal bi loolu nag la ñëpp di xaar di mardi ndax Aliou Cissé day maintenir équipe bi mu tegoo wala day créer surprise day gëna am fit niko ko Walid Regragui yi defee teg équipe bo xam da ngay ñëw pour gagner 100% compétence 100% au niveau 100% confiance 100% technique lañuy wax parce que nak ndaw yi gars yi temps yi ñi ngi ray mag ñaa ah, ndaw yi moom ñi ngi ray mag yi ci match yi nga xam moy am entraînement bi dégg gis ngeen ñoom Pape Matar Sarr ñi nga xam moy donc ñom Ilimane Ndiaye gayna na Ndiaye Gaye na bëggul moom yàppalay dundee ay ñom Pathé Ismaïla Ciss ñoo gël jaay yi daf leen comme pâté pour Génard, pour ne pas dire pour chien qui a nga match entraînement mais aussi qui a xam le métronome de du côté droit de l'équipe nationale du Sénégal en forme il bu ko Il jot bu ko a jot bi nga xam qui ba de match qui ñu ngi di match bi nga xam match mais aussi mais aussi euh, buñuy wax deug rek actuellement le Sénégalais s'attend à voir un Pape Matar Sarr débuter surtout ci bal arrêté parce que match bi gars yi bal arrêté yi sax day compter bal arrêté day compter on espère voir un Iliman Ndiaye bo xam day doute paajal di fàq di teg nële côté bi di wéyelé lépp ak bal bi Pathé ismaël Ciss le métronome du milieu de terrain Bamba Dieng Dieng niñ ko waxé waxee Moustapha Nam et autres Aliou Cissé dal mi ngi nii ak équipe am gars yi nag xamaguñu ne ban la fas tek mais on espère on espère que El Tactico va faire du El Tactico et va arrêter de faire du Bounama Rasta parce qu'actuellement Sénégal mom warta am match nul waruñu ko xalat li jëm nak ci match bobu noonu waxoon naa ko ki di donc Pape euh, Bouba Diop euh, ci lay donc fête anniversaire am ci biir souf euh, anniversaire bi njëkk ki di El Hadj Ousseynou Diouf nag boy na ñom dinañ jouer match bobu pour ki nga xamne moy donc Pape Bouba Diop ils vont faire donc le match parfait pour daal honorer pour daal di sargal pour daal di fàttali ko nga xamne moy mooy Pape Bouba Diop l'homme donc de la France hein moy le buteur de la France le le le comment dire un gars bi nga xamne mo moo rayoon France le bourreau de la France Pape Bouba Diop bo xamne numéro 19 bi ki di donc Famara diop moko fassé na yéene solaat gars yi wéy leen di like wéy leen di abonné toujours un plaisir de vous servir. Diagneuf.